partie de l'équipe Diamniadio Diamniadio Techball Club ak compétition bi neexoon na tey suñu première participation ñu dóor suñu ñu am deux matchs ñu dóor mais dinañ si jàng ko jàng pour suñu màggee ñu dem ay compétition internationale yooyu ah ñëwoon fii ci tournoi bi nga xamante ni moom la suñu grand Soumaré initié fii ci Diamniadio tournant bi nag nekk na tournant bu am solo bii mooy deuxième édition bi première édition ñu ngi ko defee woon Géejawaay stade Amadou Barry nekkoon première partie boo xamante ni man maa nekkoon champion échange bi deuxième tournant bi la ñuy joué nii jongante pour waajal challenge coupe du monde bi daal waaw tournant bi nag rafet na neex na ndax ñun ñi wuyu si nañ ko te nekk na loo xamante ni sport boo xamante ni dafa war a gën a développer parce que y a des jeunes comme ñu nekk sama ginnaaw ñi nga xamante ni ay xale yu ndaw lañ presque amaguñu quinze ans seize ans sport xale ndax ñii dañuy màgg ëllëg ñu ñooy représenter Sénégal comme instant bi ñun ñu koy defee di représenter Sénégal partout dans le monde ñun nag bëgg nañ ñu gën a jàppale ci sport bi comme euh, monsieur le ministre bi ñu koy woo mu jàppale ñu ci sport bi bi di teg bol mu gën a développé wu. am na ay membres yu fi nekk yoo xamante ni comme président Djibi Sy ak Seck ak euh, monsieur Mané arbitre. ñoom ñu ngi siy contribuer ñu ngi siy def li ñu mën ñu ngi siy def euh, seen seen wareef mais ba tey day des ndax am na yoo xamante ne ay moyens la te état bi lañ si soxla pour mu jàppale ñu bu baax a baax a baax a baax te ci kaw loolu moo tax ñuy woo monsieur le ministre mu ñëw jàppale ñu appuyer ñu ndax déjà euh, dans deux mois coupe du monde bi dafa war a am mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi am Vietnam foofu lay amee te bëgg nañ ku si jàppale ndax ñoo war a représenter Sénégal ci sport boobu noonu moo tax daal ñu ngi ci woo ñëpp ñu ngi woo ñëpp di remercier tamit tous les clubs yi nga xamante ni ñu ngi def effort di ñëw day metti région ak région ñuy jógee di ñëw seen propre moyen xam nga président bi tamit di ci contribuer di ci def li mu mën metti na trop mais ñu ngi koy ñu ngi koy gën a encouragé ñun gis nañ taxawaayam bu baax gis nañ taxawaayam bu baax monsieur Djibisi gis nañ taxawaayam bu baax mais ñu wax état bi rek mu gën ñoo jàppale gën ñoo bàyyi xel ndax ñun ay xale lañ sport la ñuy def étude wala sport di di boole ko beneen métier comprendre nga léegi nag ci kaw lool loo tax ñuy ñaan rek ñu jàppale ñu tey jii nii bëri na suñuy morom yoo xamante ni ñàkk espoir moo tax ñuy jël gaal wala dara lu ci mel ne dañuy yëngu ci dara mais dañu si gis avancement looloo tax ñuy waral ñuy def loolu moo tax may lancer appel rek ci lu mu mënti doon doon bu mu mënti doon doon say ndaw réew ñoo lay woo pour nga jàppale leen ci li ñuy def ci sport bi ak leneen lu mu mënti doon dama koy généraliser rek mais ñun instant bi soxla nañ trop trop trop ñu jàppale pour ñu avancer ci li ñuy def incha allah. Euh, tey jii nag ñu ñëwoon fii si jam ñaajo euh, doon fi def suñu tournoi qualificatif pour les prochains championnats du monde donc euh, actuellement nii nag dañoo nekk ci tournoi petite catégorie waaw moom préliminaire la rek pour préparer donc le grand tournoi donc xale yi la ñu nekk ci tàggat di xool ci seen biir ñan ñoo ci gën mën c'est en en préparation également des Jeux olympiques JOJ euh, 2026 euh, bi war am fii ci Dakar nga xam ne yi dong ñoo ci mën a donc actuellement ni euh, compétition mi ngi déroulé ñu ngi ci finale bi mu opposé l'équipe de jam l' équipe de Jàppo Jàppo Samb Géejawaay ak l'équipe de Jumenga bu Kër Mbay Fall donc ñaar équipe yoy ñom ñoo gagné Diamniadio donc ñom ñaar ñoom ñoo dem finale donc actuellement ci préliminaire rek lañ nekkagum quoi moom mooy ci ma catégorie c' est un tournoi de détection bu tournoi bi jeexee nak ci lañu jëm ci tournoi bu mag bi. département bu mag bi nag moom euh, c'est pour xool effectivement ñan ñoo war a représenter ci Sénégal ci championnat du monde bii di ñëw championnat bii di ñëw ñu ngi amee ji Vietnam donc ci mois de décembre lay nekk du 8 au au 12 décembre lay nekk donc euh, ci tàggat yaram tàggat xool gëstu xool ñan ñoo gën a ne compétitif ci suñu suñu joueur ci yooyu lañ nekk amoon na tournoi bi jiitu woon nag defoon nañ ko bi mooy second tournoi bi donc euh, ci ci buñ ci jógee nag ci la ñuy ràññee Euh, def sélection yenn jour ñoom ña war a représenter Sénégal dinañ leen def na benn camp camp fermé boo xam ne seen biir lañ leen di dajale tàggat leen ñu xool boobaa ñoom ñoo ci gën a apte pour représenter dignement le Sénégal en double en single et en mix. Euh, ñuy remercier nag euh, ci ci tournoi bi ñu jàpp ci organisation bi muy Vieux Sow ak docteur Chérif Laye ak ak waroon jiital sax la la commune de de Diamniadio ñu ngi nekk ni seen esplanade ñu yombalal ñu ko. di remercier tamit la Croix-Rouge ni jouer rôle jouer la la sûreté hein, euh, di remercier la chaîne TV3 bi nga reportage ci émission ci biir donc toutes les bonnes volontés ici japp dal Je tamit xel ba am mais